천천히 해요? ba tey ñu ngi nga xamante ne ah, mooy kër sëñ Mor taalibe sëñ Bara ndax ku ne xam na ne tey Ada Fass moom ak ah, guy gi gis ngeen ne Ada Fass def guy gi mu daan ko jël bu spécial ah, ñu ngi koy félicité bu baax a baax di encouragé ki nga xamante ne mooy guy gi te fi ñu nekk nii mooy kër sëñ Mor sëñ Mor moo yor li nga xamante ne mooy mystique gu Ada ndax gis nañ durant combat bi bari ni bi amee tey gis ngeen sëñ Mor tout le temps que du toog chaque jour mi ngi ci mystique gu Ada Fass yi tey nag mu am ndam ñu ñëw kër sëñ Mor seet si waa kër sëñ Mor njabootam doomam wala yaayam naka lay seetaan li nga xamante ne mooy combat bi ay si nag may topp rek ba xool waa kër sëñ Mor ñoom it Aada Aada Aada Aada fay naa la xanaa kontaan rek macha allah ndax sunu doom ji nga xamante ni moo ko ngemb yóbbu ko di doom ju baax macha allah te kii xam nga ne ku mu nga am ndam barki yonent bi dañoo kontaan sunu xol yi sedd na. billaay wallaay moor ci kaw ci kanam rek ci lu baax fii moom ku bëgg daan rek da ngay ñëw ci sunu doom ji macha allah bu la defalee ay affaire rek ca kaw ca kanam barki yonent bi maa la wax lii torop waaw Nul ñoom ñaar dañoo wéetoo ba si yàgg arba arba teel ko seen mu daan tey Aïssa ah, ñu ngi fi nga mooy buntu ko sëñ Mor nee naa kër gi ñu taxaw tey ah, Ada Fass kaay kaay kaay kaay ba ah, ñu ngi fi nga xamante ne kaay la ñuy topp ak Ada Fass billaay taalaay comme sa mbër na nga ko téye Ada Fass seul seetaan na combat bi kontaan continuer mel maîtriser xanaa neex. mais est mooy kër sëñ Mor Aïssa taalibe sëriñ Baaba eh ndax kaay kaay ndax ku ne xam ne combat bi tey. fay nañ la. maa ngi baax baax. tuddee victoire ah, kontaan rek comme que mooy borom Dakaaru te ñun borom Dakaaru rek la ñuy topp bàkki sëñ Bamba di sant taalibe Seex parce que ba mu fi ñëwee ba tey dafa sekk ak xale yëpp jàmm kon am na nu mu doon taxawee fii kon benn xale du fi taxaw mais fu ma romb même su ma ko ñaanu dafa yëkk ma am attaaya leen kon loolu rek mbégte la ñun dañ koy ñaanale mu yàgg suñu kanam lu mu bëgg yàlla defal ko ko billaahi di sant jabaram tamit. sëñ Mor mu ànd ak Arafaas lan nga yëg. billaahi kontaan rek xam ne dañuy am ndam. billaay wallaay parce que ñun dañ koo bëgg bëgg Ada Fass tombé bëgg ko moom tamit kon yàlla moo leen boole. billaay doole dafa am doole dañ ne doole xale kon lépp xale ak sëñ sëñ bi tamit jàppale ko kon ñu xam ne ñun dañuy am ndam billaay wallaay dañ koo bëgg. yàkkamtiwul combat parce que ñu gis mu naan Ada Fass ñëwal gaaw dama yàq. non jaar jaar la moom li ko lu ko ba romb jeex na loolu la amee woon li es bi xale yi ñoom moom lépp. aada da ko ëpp doole wan ko ko. bilaay wala ak tamit dafa am jàppale. waaw lépp dañuy jël rek di sant sëñ Mor parce que ñun xale yëpp ko bëgg fii. bilaay walaay. sëñ Mor nee na mooy làmb. mooy làmb mooy lépp Dakaaru taxi jàppale borom Dakaaru. bilaay walaay wër na sëñ Bamba jaamu si yow. Aïssa ah, ñu ngi fi nga xamante ne mooy kër sëñ Mor taalibe sëriñ Babacar Sy bi ah, ndax ku ne xam na ne tey moo yóbbu woon ki nga xamante ne ah, mooy Ada gis ngeen ni komba bi demee ndax sëñ ku ko xam-xam ak Ada boo xoolee tey durant combat bi ba ni combat bi jeexee moo ko dara ànd ak moom fi nga xamante ba ne ndax sëñ nee naa la Ada rek la bëgg Ada Fass lay topp moom looy waxtaane moom tuddoo Ada Fass sax bëgg des fois ñu bëgg koo jox jox ko sëñ Mor aada mi ngi ci état de mu kontaan kon nee la kooku ku yëg aada Fass la waaye bëgg aada Fass la nag ñu ngi ci biir kër gi ñu xool kër gi ñoom it naka lañ seetaanee li nga xamante ah, mooy combat bi aada Fass moo yëngal gësam ay waay aada Fass moo yëngal gësam ay aada Fass <laughs> sama jéeg laay nii waaye <laughs> fay naa leen. ayca ki ñu toogal tey euh, mooy soxna sëñ moor aawa buuru këram aaw xale. ndax nee naa la ay kër gi am sens intérêt suñu kër la heure bu ñu fi bëggee dugg dañ fiy dugg heure bu ñu fi bëggee ñëw dañ fiy ñëw te bu ñu ñëwee ayca heure ayca dañ fiy bu baax mënul loolu. Euh, kon ñu ngi koy jaajëfal baax a baax na fi di ko kontaanee euh, série sëñ Mor wala nee naa la mooy soxna sëñ Mor. kër gi moom li may far di wax rek suñu kër la tey nag ku ne xam ne ne Ada Fass da ki nga xamante ne mooy guy gi naa combat ba ni combat bi jeexee gis ngeen euh, contrat yi nga xam moom la ñuy waxee wala ni Ada Fass di waxee tey nag combat bi jeex na Ada Fass am ndam ñu ngi koy bu baax a baax di encouragé ki nga xamante ne mooy Ada Fass euh, soxna sëñ Mor na fi gis naa ne nag seen combat na la ko jugal bala malaakat ji na fi ma seetaan nekk dëgg la maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla macha allah lépp rek dañ koy delloo santee ko suñu borom rek moo ñu kàttanal may ñu dam jàppale ñu wax dëgg yàlla macha allah may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp yéen ñu baax ngeen yéen a ñëw mënoon ngeen fee ñëwee ne la comme boobaa ñu accueillir leen ne mais yéen a bokk ci kër gi macha allah kon yàlla na leen yàlla dafa jàmm barke liggéey bi yokk ko di sant sama jëkkër nag bu baax muy ku baax muy ku bëgg ñëpp bëgg waa koñ bi tey bu am woon nu muy doxee ci koñ bi kon kenn du ko faale dëgg yàlla bëgg na ñëpp bëgg na njabootam avant tout lépp njabootam kon macha allah yal na ko suñu borom barkeel yokk ci kaw ci kanam incha allahu rabi ci lu baax yal na ko suñu borom la fay cat. macha allah nga am borom kër goo xam ne dafa ne ci làmb tout le temps que gis nga ay combat yoo xamante même bu dul aada faa sax am na yeneen mbër yoo xam ne tout temps que jour da leen yóbbu fi nga xamante ne mooy stade tey boo gisee sa borom kër. nekk ci télé bi nga di ko séen te bu ñu xam ne ne sëñ Mor ci lu muy song la ciy wane fulla la ciy wane muy def ah actif bi muy def jàmbaar gi mu nekkee tey lan sant yàlla rek moom lépp nekk na nit koo xamante ne dafay jàppale ñëpp moom xeebul kenn ñëpp lay recevoir fii moom nga yor ñaar dërëm ak ku yor ñaari junni moom la yemale moom nekk na nit koo xam ne simple na humble na wax dëgg yàlla macha allah te bëgg na tamit lu muy def dafa bëgg lu muy def moom même boo ko joxul dara sax da ciy demee ak xol ak yéene moom na nit ki am ndam rek ndax yaakaar dafa foor bëri na ñuy ñaan bëri na ñu nekk ci dëkk bi mais képp ku romb buntu kër yëpp ñëw ba ci yow ne yow la yow laa bëgg nga ñaanal ma kon kooku am na fu mu la teg te aada dafa nekk nit ku baax ak mbëri ñu fi ñëw ñëpp suñu limee damay juum rawatina soxna aada nekk nit ku baax keroog la ñëw amul ndeysaan mu andil sama seex kon yàlla na ko yàlla dafa jaamu bàyyi ko ak borom ba mu yàgg di fekkee lépp ci barke Nabil mu yàlla na yàlla bi muy génn ci kër gi ban heure la génn tey mu ngi fi génn ay 13 heures waaw la mu jeex bi muy génn waaw xool ko ñaanal ko rek sottil ko ndox bu sedd guy mu dem ak jàmm ñëw ak jàmm comme ni mu ko daan defee rek incha allah waaw macha allah mu am ndam ndax boo waxee sëñ Mor mu ne man maay làmb tey est-ce que xam nga ne sa jëkkër mooy làmb waaw xam naa ci dara mooy làmb dëgg yàlla bu làmb dañuy togg añ sax mën na ko doo lekk du nangu sax lekk parce da ciy demee moom feeg làmb bi passé rek maanaam àqam la koy jox te liggéey nit booy liggéey jox ko àqam rek kon sant yàlla waaw mënoon nañ ko fay tamit mu tëdd dina la heure bu ko neex bu toogee boobaa mu am lu ko neex rek dëgg yàlla macha allah moom lépp da koy dem ak ak xol waaw ndax yaakaar dafa fort macha allah. soo gisee sa jëkkër ñu koy critiquer ci télé waaw oto bu ci kanam la ñuy klaxonné ku nekk ci ginnaaw kenn du wax ak moom mm-hmm. te suñu borom na wax dëgg yàlla da koo teg ci kaw ci kanam mm-hmm. macha allah mm-hmm. kon yàlla na yàq euh, sunu borom doolil ko jàmm doolil ko sutura moo jiitu ku jiitu ñu sànni la ku jiitu ñu wax la ku jiitu ñu am luñ defee mais moom comprendre la waaw moom xam na mooy kan xam na fi mu bëgg àgg te ñu ngi koy gunge ñu koy taxawu macha allah waaw yàlla na ko yàlla dafay jàmm dafay faral di wax tamit euh, am na ko rek da ciy jël ak euh, li nga xamante ni mooy yéeneem ndax des fois mu ñaanal Ada Fass sax euh, ko jox mais da ko koy delloo ngir yéene bi nga xamante ne am na ko ci ki nga xamante ne mooy Ada Fass sànq yaa ngi koy wax nga ne Ada dafiy ñëw soxnaam sa waay la des fois day indi ay yére ay nangam indi jox ko li nga xamante ne mooy sa seex yi tey bu fekkente ne jabar Ada Fass tey dafiy ñëw muy jalaa ñu koy gis tey mu am connaissance bi ak yow lan nga waaw sant yàlla rek loolu mooy wane ne ñoom dañ ñoo boole seen bopp boo waxee mu ne fii sama kër la da koy wane surtout Abakara bëgg nañu ñun ñëpp bëgg na seex wàcce nañ seen bopp oyof nañ te àdduna amul lu dul oyof ndax nit fii kenn mënu fee jaay lu kenn amul mënoon na am ay yérem ko mais sant yàlla kon du tee seex yi dañuy solo macha allah mais yëg-yëg la te dafa fort nit même la joxee dërëm sax loolu da ko koy sante ndax ñàkkam la dañ bëgg fii la ñuy ñëw toog ci saal bi kaf fooree waxtaan sottante xalaat te ah, aada dafa nekk nit koo xamante ne xeebul kenn man mi bu fi ñëwee damay wax moom mais du tee dafa may déglu jox ma cër bi kon yàlla na ko yàlla dafa jàmm rek bañ dégg fu ñu dégg ba mu nekk roi des arènes incha allah te yàlla moom sëriñ xale te sëñ Mor xale waaw dëgg la lépp xale koy def <laughs> mais nga xamante ñoom tamit dañuy ñaanal ay mbër euh, sëñ Mor na boo gisee sëriñoo di ñëw arène national fit boobu sëñ moor moo leen ko waaw dëgg la daawul gis benn di ñaanal mbër di ñëw na nag lu mu rénové ci làmb ji bëri na yoo xamante ne mu ngi koy def te sëriñ ñu ngi koy defaat moom bëggul sax ñuy wax ñu duñu commenter duñ def dara mais gis nañ te yéen yàgg nañ ci làmb mais moom am na lu mu def ci làmb am na noo xamante ne évolué na ko ci làmb te làmbam da koo jox àqam lu bëri moom moo ko fi andi jarul sax ñuy lim ndax ku ne xam ne ay yëfu sëñ moor fii bu ñu fi gisee leen mooy borom mooy borom biri del tamit mooy borom biri del mu sotti aada teg la ñetti biri del takku ko sotti ko biri del moom yëfam la moo ko moom ak yeneen ak yeneen macha allah waaw mais gis nañ yéen sëriñ yi tamit ñoom it ñu ngi indi ay biri euh, di indi ay feuille blanc di indi ay suukar di indi ay lay yëpp mën nañu wax ne ah, ci sëñ moor lañ waaw moo ko moom mais loolu sant yàlla rek daa baax bu baax woon peut-être xëy na dañ ko toppandoo hmm. ndax nit yaakaar naa boo bëggee lu baax lu baax rek ngay roy mais moom bagage am ñun ñëpp xam nañ yëfam macha allah yal na ko yàlla dooli jàmm rek waaw. nekk ak sëñ Mor métti na wala. non non nekk na nit ko oyof nit ko amul benn problème. mën na ko nekk nañ nit ko oyof nit ko amul problème bëgg na njabootam day ambiance à part sëñ Mor bu ñu gis ci làmb ji mu nekk kilifa mu nekkee këram day wàccee boppam. kafoore bégal njabootam moom ak njabootam amuñu sens interdit wax dëgg yàlla nekk na nit ku oyof fi lay nekk day def lépp yor na daal jël na si jukko yonent bi macha allah ndax day kaf ak ay njabootam day waxtaan ak njabootam moom man maay aaw meek xamakal la des fois dama naan ko yow da ngaa rafle doomu bàjjen ndax maa moom nu ñuy nekkee kaf foore ñu loolu lañ xam wax dëgg yàlla macha allah yàlla na yàlla xel succès bi nga xamante ne sëñ moor am na ko ndax sànq wax naa ne sëñ Mor mooy làmb tey mu nekk xale nekk ndaw di ñaan ci li nga xamante ne mooy làmb nuy dundee succès. waa sant sant sant yàlla la ndax nit ku nekk loolu rek ngay ñaan nga nekk ak nit ba mu nekk euh, am avancement. te wax dëgg yàlla ñu succès bi mun naa ne man yëguma ko ndax na meloon démb ak barki démb noonu la mel ba tey changé wul doxew ko waxew ko. otom bi la yore ku mu romb klaxonné la taxaw nuyonteeg yow jàmm santeeg yow toog ataay grand place ba mu doon ñi mu doon àndal démb ak barki démb ñoom lay àndal ba tey kon moom yëgul succès mm-hmm. waaw yal na ko yàlla dafa jàmm mm-hmm. wax dëgg yàlla yëgul gisuma bi ñu naan ñun daal wàcce na boppam te oyof na nit a ko mën a taajal ci mbedd bi mm-hmm. waaw boo amee combat di préparer combat comme euh, a Fass di koy gis dina bari non non du toog lu bari du nekk lu bari parce que lu nekk daa am lu laaj te da ko koy jox koy day wasu àq daal day dox ah, da koy jox àqam mat macha allah da koy jox àqam ba mu mat wax dëgg looy wax sëñ Mor comme am na ndam tey nag wax dëgg yàlla ah loo koy wax encouragé ko ne ko ah comme rek sëriñ <laughs> sant yàlla rek li ko neex mu jox ko ki ko neex sunu borom moo ko dara jaal sunu borom moo ko jàppale moo ko def nu mel ndax du mag xale la wax dëgg yàlla xale la kon sunu borom moo ko teg fii mu teg moom tamit doxee ko waxee ko mu ngi sant yàlla kon yàlla na ko sunu borom làq ko fa làq eggut man sa aaw buuru kër maa lay ñaanal ñang baalo dembal yaa xam li nga bëgg sa njaboot bi yàlla na la ko suñu borom defal ci barke nabi Mustafa yàlla moo tali projet yëpp yàlla bàyyi la fi wax dëgg yàlla nit ku baax la ko amul benn problème yàlla na ko yàlla defal jaamu macha allah loolu laa koy ñaanal. ko feeñal a ah, fi mës ta feeñ ci écran ñun ñu ko génnee feeñal ko waaye nag kii ñu kii ñuy fekk si ay sax caa dëgg nii caa si ruq bi la seetaanee ne combat bi sànq maa ngi koy gis mais na def na lu ne caax. c'est-à-dire li nga seetaan ne yow. sama mag gi rek daa bëggoon bi suturaal ko. xaw mënu ma wax nag. si bi loolu rek moo taxoon ñu am pression bi. suturaal na ko. waaw ndax dafa sonn si ñun wax dëgg yàlla moom rek la ñu am bi sam papa gaañoo ba mooñ taxaw ñu gis bu Ada Fass amee combat li mu siy daj du lekk du naan pour mu lekk sax problème la soo ko waxee mu ni combat bi combat moo tax lii rek lañ ko doon ñaanal lii rek lañ ko doon ñaanal wax dëgg yàlla suñ borom suturaal ko da def si dégg lu nekk lu nekk dégg na ko ci ay saaga ay menaces lu nekk jot na ko si kon lii donc moo taxoon boobu ba léegi tooguñ taxawuñu ñu am benn pression mais suñ borom def na li doon kon alhamdulilah rek la ñuy wax sax yaa ngi wax que ne lu nekk lay dégg mais dañu gis combat bi nga xamante def na ko muy euh, bi passé moom ak ñaabu ndaw mu ñëw perte ko dégg lu nekk mhm. euh, tey mu indiwaat ki nga xamante ne mooy Ada Fass ndax ku ne xam ne euh, ak Ada Fass benn lañu ku ne sëñ Mor ne Ada Fass ku ne Ada Fass ba Ada Fass sax papa lay woowee sëñ yàgg na mu topp ko diiran ba ni mu egsee fii tey tey mu ki nga xamante ne mooy guy gi combat bi moom xam naa ne seetaan ci ruq bi nga toog seen naa la nga koy seetaan mais tey noo gisee tey victoire waaw kontaan rek kontaan rek parce que lii daf ko war a jëmale fu sori donc mënu woon ñàkk combat bi mënu woon ñàkk combat bi donc même bu ñaabu ndaw bi aussi suñ borom dafa def li gën ndax moom dafa doon toog naan année bi su ma yóbboo mbër te daanuwul du gën man donc dafa nekkoon di gën rek ci moom parce que suñ borom bi mooy maye mën nga yóbbu mbër mu daan mën nga yóbbu mbër mu daan daf ci ànd ak nag cent fois bi daanoo ndax fi la ma fekkoon bi mu ñëwee dafa ànd ak dal ne bu beneen yoonee dina neex. donc suñ borom mooy maye mooy xañe moo ko xañoon boobu moo ko may bii naa di ko ñaanal rek li ci des yëpp suñ borom defal ko ci ndam rek loolu rek lañ koy ñaanal. sa mag si tey ah, mu nekk sëriñ di ñaanal ay mbër tey ah, nga gis ko tey lan lan lan da nga koy yërëm wala ndax man man ak moom nii lañ def man mooy sam papa ndax sam papa dafa teel a gaañu moom rek laa gis sama lépp moom la donc su ma ko gisee si télé bi su amee combat rek surtout bu Ada Fass su combat Ada taxawee rek man ma nekk ndax damay xam lim siy daj ndax bu defet amee lim ciy dégg wax yim ci dégg donc moo boo xamante ne nii dafa dafa daan nekk sëriñ ñaanalaat ndax ñoom ñoo bokk guerre bi ñoom ñoo bokk milieu bi donc loolu rek nga koy yërëmee ba ba muy dem démb dama ko woo ma ne ko dimbale ma sax tamit nga ñibbisi ndax loo xamante ne ni déjà signature le problème commencé di am buñ ko daanee ñibbisi ndax nit ñi dañ laa xam te ñun moom rek lañ am bi muy dem loolu rek lañ ko denk buñ ko daanee bul xeex bul wax ku la wax lu la nag ma sama loxo nag ba mu ko wee xaw ma dara man nag maa tey nag wane ko nit ñi xam ne donc forum du ko bàyyi du ko bàyyi du ko bàyyi loolu ko ci xamee da borom waat waat su ko yaar ñaanal ñaari laa am seen baax Ada Fass dafa am combat bu fi yéene France bi koo xam xale na nag si dem bëri fulla fulla ak fulla loolu bañ dégg wax kenn commencé ñu ci saa yu neex man bu ma dugg dugg vidéo saa yu début bi dama doon dugg si tool. mais jamono ji soxna si benn côté bi moo tee gembe fi mu ne. loolu nag amoo. ah moo tax kenn toogu kenn taxawul. borom biriteel yi. waaw borom biriteel yi ak borom raisin yi. ak borom raisin yi. waaw ba tey ay sax ñu ngi fi nga xam ne moom mooy pour suñu bopp daal di am na dox ci grand combat bi rek Ama Baldé ba tey ñu ngi nekk ci stress ñëpp a génn zibilé ndamam bi yàlla na ko ji daf naan lii mënut a ñàkk ndax sëñ bi naan ko dafa bëgg waajuram fonk ndeyam am dafa bëgg wàññ bi man wóor na yàlla mosuma gis Ada Fass mais damaa daw a daw ba daanu ndax naan jox na kër xam na li muy jox ko ñun ñaan dañu xam ko dañ koy ñaan ndamam bi dana ñëw kanam yàlla bu ko ci jaaxal wax dëgg yàlla man li ma gën a ñàkk moom mooy ndax man sama kër man sama kër man de maa ciy sëy ci ñeneen man kese man damay dem ba fu mu mën a dem bu ma sëñ Baba laay waat maa bëgg sëñ Baba ba kii moom yaa ma tax ma bëgg mais moom moo tax ma bëgg sëñ moo tax ma bëgg moom waaw kon moo tax yàlla yàlla muy wërsëgam waaw ku bëgg ndeyam sonk ay waajuram boobu papaam génn àdduna amul lu mu deful fii daa faj papaam ba papaam génn àdduna waaye kon nag ko lépp kon nekkoon ne papaam ni naa nekk ci ko sàmm ko xool mu ko kon def ci yoon def yàlla ko yàlla sàmm bàyyi ko ngay la kii nag ñëw ci fan fii mais fii moo ko dàq fa mu jóg ndax du nangu ñoo bokk ak ñun lépp lu am kon bi mu ngi taxaw ne atta ñëwal waa kon ñëw leen ñu ñoo defar du ci xool dara du liggéey mënoon naa xool du liggéey dañ ko bàyyi ak yàlla rek lool lool lool lool waaw jël na sama doom yi nag Allahu Akbar